asalaamaaleykum uh, mbokki jullit yi uh, ak mbokku taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ku ci ne ci turam ak santam di leen uh, balu àq di leen balaq di leen mottali waxtaan waxtaan wi fi doon waxtaanee. ajjuma ji ñu génn te jëm ci mbiru mbiru jàkka ji ñu doon wax ci maanaam lépp loo xam ni dafa aju ci entretien bi ak charge yi nga xam ni dafa am fii ci biir ci barab bi ñuy gërëm mbokku taalibe yëpp di gërëm jullit yëpp ndax booba ba léegi réaction yi nga xam ni ñoo ngi koy def nekk na réaction yu am solo muy loo xam ni wane na ni barab bi ñor na leen niñ ko waxe woon rek barab bi nag du barabu kenn barabu yàlla la jàkka ji yàlla moo ko moom moom la ko fi sëriñ bi liggéeyal pour jullit yépp kon jullit yi nga xam ni ñooy jaamu yàlla yi ñoo war a yor barab bi ni nga xamee ni bii moom la barab bi war a méngoo ndax barab bu ñu moomale suñu boroom jaamu suñu boroom yi ñoo ko war a toppatoo ñu doxoon ci nag ay jéego ci ndigalu kilifa yi mooy loolu ñu leen doon wax ci ay maanaam kartu barkeelu defar nañ ko ba nuppi na moo taxoon ma bëggoon leen ko woon képp koo xam ni yittewoo nga ko te man nga ko muy carte yoo xam ni day nekk ay carte yoo xam ni personnalisé lay doon maanaam képp koo xam ni mbirum barab bi ñor na la te nga bëgg cee jàpp carte yi nii lay mel ku ci ne day am sa photo ñoo ngi koy joxe junni junni nag day loo xam ni moom la wax ni rek moom lañ koy joxe waaye lu waay man lu ne yow yaa xam la nga man ak la nga bëgg a liggéeyal sëriñ bi liggéeyal ko diine ci barabam bi fii lañ koy defe ca bureau yële dina am ay appareil yoo xam ni ku fi ñëw dinañu jël sa netaal jël say coordonnées def ko ci ndax dafa am ay électro euh, ay euh, ay coordonnées yoo xam ni boo xoolee carte bi am na maanaam loo xam ni boo ko ci scanné dina la jox renseignement yépp nga xam ni nag carte la woo xam ni bi barkeelu weer wu dee wu ne la ku ci ne boo mënee weer wu dee wu ne nga joxe junni nga joxe boo mënee lu ko ëpp yow yaa xam la nga bëgg liggéeyal sa borom ci barab bi liggéeyal ko Sëriñ Tuuba ku ñëw fële dinañ la bind defaral la carte bi bu jotee dinañ la woo ci sa numéro téléphone jox la ko bu fekkee ni bii sax nit ñi bariwul man ngaa taxaw ñu defaral la ko buñ la ko defaralee carte wu ci nekk daal di am sa ay coordonnées nga xam ni sa yëfu bopp la bu ko defee weer wu ne loo man fi sabilillahi nga def ko ci biir jàkka ji mu tudd carte barkeelu am na numéro téléphone bu ci ne numéro téléphone bi 75 la 643 28 28 75 643 28 28 numéro boobu dafa am compte Wave am nañu tamit compte Orange ne am nañu compte Wesel am nañu compte yi nga xam ni mooy plateforme de paiement yi nga xam ni ku ci nekk ba nga xam ni moom nga gën a jublu boo ko ci defee dinañ joxe numéro yooyu yëpp boo ko defee dina dugg ci compte bi nekk ci ordinateur bi nekk fii nga xam ne képp koo xam ne dugal nga ko bu la neexee nga ñëw vérifier ni sa tur ak la nga joxe dugg na ci biir compte bi ci biir jumaa ji muy loo xam ne lii loo xam ne lu traçable la boo ko joxee yow mi envoyé message bi saw numéro saw tur dina ci ne la nga joxe dina ci ne ca numéro téléphone tamit dina ci ne bu ko defee mu wóor la ni la nga joxe woon dugg na ca biir leneen li nag mooy ay carte yoo xam ne bii ay carte barkeelu la ay ticket yoo xam ni dinañ ko jox nit ñi ñu dugg ci biir sàppe si ak ñoo xam ne ñooy nekk ci bunt yi ak barab yi nga xam ni bi ñu tàmbalee defar jàkka ji xam ngeen ni dañoo daajoon dañoo wutoon ay kees lu jóge ci ñetti téeméeri kees ak fukki kees ak ñett moom la ñu tegoon ci barabu liggéeyukaay yëpp ci marché yi Mbay Njaay Sanosi mii moo ko jiite woon def ko ci palaasu marché yu bari am na kees yoo xam ne ba tey ñoo ngi dox am na kees goo xam ne barki démb lañ ko dindi tabarkàlla fekk nañ ci koppar yu bari alaaji Taala Cubb mii moo ko yor fële ca marché Tilène ñu defar nag ay tikke yoo xam ne ay tikkey barkeelu la mi ngi nii carnet la boo xam ne bii juróom fukki ticket lay doon am na ticket boo xam ni ticket téeméer la mu ngi nii ku ci ku yittewoo téeméer booy dugg ci jumaa ji ñu daggal la ab ticket moo nekk nii buñ ko daggee nii jox la ko nga téye sa ticket chose bi day daal di nekk ci carnet bi parce que carnet yi yëpp comptabiliser nañ ko chose bu ne am na numéro bii numéro 0001 la chose baa ngi nii boo ko jëlee ñu jël ko daal koy verser ci compte bi am na beneen carnet boo xam ne bii tamit carnet bu tamit carnet ñaar téeméer la carnet ñaar téeméer ak bu téeméer bi nuroowuñu bii carnet ñaar la ku yor ñaar téeméer te man ko fee bàyyi ci jumaa ji fi sabilillahi it boo ñëwee ñu daggal la ab carnet ñu daggal la ticket nga yóbbu suus baa ngi fii am na beneen carnet boo xam ne bii mooy carnet ñeenti téeméer carnet ñeenti téeméer baa ngi nii ku ko yitte woo tamit ñu dagg ab tikke jox la koo xam ni kii tamit ku mel ni alaaji taala ci bu ni ma ko waxee te nga xam ni mën ngaa laaj ab carnet bu def juróom fukki tikke ñu jox la nga yóbbu ci mbokk daayira yi wala nga yóbbu ci place yi bu ko defee boo ko jaayee ba pare nga ñëw verser ko fii ñu def ko ci liggéeyu Serigne Touba bi loolu nag ab soññ la rek bu may soññ sama bopp di leen soññ ak bëgg ñu àndandoo ñun ñëpp liggéeyal yàlla ndax néegu yàlla bi kenn mënu koo yor lu dul taalibey sans borom eh, taalibey jaamu yàlla yi ak taalibey Serigne Touba yi loolu daal moo doon waxtaan wi ci lu gàtt ajjuma di jafe xat ñoo ngi jéggulu tey wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jafe